En même temps di leen gërëm di leen sant ne président de la république fu mu nekk ni tëggal nañu fu mu nekk nii suñu pétrole daf ci yagg ba li nga xam ne dañu bëgg a gunge suñu entreprise bi li nga xam ne soxla nañ ko si rek ñu ñoo ñu gunge leen à travers ce contenu local di leen monsieur madame le ministre la parole est à notre collègue Guy Marie Sagnon mbokk yi nuyu naa leen monsieur le premier ministre Sénégal yi dañoo bëgg a xam lan moo tax bu ñu gisee tey police ak gendarmerie. monsieur le premier ministre Sénégal yi dañoo bëgg a xam lan moo tax journalistes yi bu ñuy def seen liggéey ci ay manifestations ngeen xëcc seen i micro xëcc seen i caméra di leen di dóor comme ni ngeen dóoree Adja Ndiaye bu Dakar Actu comme ni ngeen dóoree ba mu xam Feuz bu Bour News. monsieur le premier ministre gis nañ ay policiers ak ay gendarmes bu ñu jàppee ay nit leen di utiliser comme bouclier humain monsieur le premier ministre Sénégal doit signer une convention internationale contre la torture gendarmerie torturée, torturer police doit torturer Qui mon observatoire national des lieux de privation de liberté lan qui est ngeen sénégalais yi ba pare camouflage yo yon ñaari da di torturer gaañ leen après ngeen dugal leen kaso ba ñu wér soog indi justice comme ça kenn du gis seen góom ministre de l'intérieur bi fen rek fen rek rek mensonge d'état